institut Hikmatul Yawmi pour l'éducation et l'enseignement islamique centre Cheikh Ahmad Bamba Touba Daaru Tanzil ak institut Hikmatul Yawmi pour l'éducation et l'enseignement centre Cheikh Mouhamadul Mourtada nekk Thiès cité ouvrière ñoo leen di may xikma bi muy ñaari internat yi nga xam ne nii waa daara ji ubbi nañu ko ba tout tànk yaa nga cay jàng euh, ku bëgg a jokkoo ñoom na ngir ami leeral wara wala ngir indi fa sa tuut tànk nanga woote ci 77 633 77 56 tey ñu fas leen yéene andil xikma bu amati solo te mooy wéyale wéyal wéyaleeg yéen xew-xewu jamono te mooy biñ ci tànnoon muy mbëkk mi te démb ñu andi woon ci ab tàmbali boo xam ne nii jot nañ ci ay intervention ak i témoignage yu bari yoo xam ne daw na sunu yaram ci réew mi ak ci France ak ci Italie ak ci yeneen dëkk ci Espagne yoo xam ne ni wax dëgg yàlla day firndeel lañ waxoon démb ne ñi ciy dem sun su rafet na ci ñoom ci ne lu baax rek ak yéene ju rafet mbooleen leen yëkkati kenn ku nekk la nga yéene lala sa borom di jàppal kon nag nañ ko waxee woon démb duñu ci encouragé kenn waaye tamit ñoo nañ seet li tax ñu di ko def kenn ku nekk la cay sa wàll nga def ko incha allah buñ ko defee yàlla mën na koo saafara waaye lépp nag ab jullit lu muy dund lu nekk na ci demee tawxiid na ci demee wéetal yàlla te xam ne lu am rek sunu borom tabaraka taala moo ko bëggee noonu ñi nga xam ne ni ñoo ci dem sunu borom tabaraka taala moo nam seenuk dem ca loole rawatina ñi doon mbooloo sunu borom day wax ci alquran ne benn bakkan xamut fa muy rote wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut kon ñi nga xam ne ni suñ borom dafa namm ñu faatoo ci avion daleen di dajale ñu bokk bis kiy jóge fee kiy jógee fee bokkuñu ay couleur bokkuñu ay langue bokkuñu ay yitte bokkuñu fuñ jëm mu boole leen waaye loolu bindoon na ko ci ësal ne seen bakkan mooy rotandoo ñiy faatondoo ci mbasit walla ci gaal yi ci géej noonu rek lay demee wa ma ahlakna min qarya illa wa laha kitaabun maalum kon lu ci mën doon it nañ ci am tawxiid bu baax a baax waaye ni ma ko waxee démb gone yi gone yu am jom lañ te nit ñu baax lañ léeg na yëkkati yéen a ju rafet la lii ñuy defit yàgg na ci kaw suuf doomu aadama yàlla da ko mooñaale gàddaay kenn ku nekk nag ak la ko tax di gàddaay boo nekkee fi barab sax amoo fa jàmm wala mënoo dund sa diine sax mën nga gàddaay ndax wa ardullahi wasia alam takun ardullahi wasiatan fa tuhajiru fiha loolu ab laaj la boo xam ne ne boo lekkee suñu borom da koy laaj na ci doomu aadama yi nga xam ne ne ñàkk gàddaay yóbbee na leen alkande kon nag nañu bàyyi xel gone yi te ñaanal leen bu baax a baax te rafet ci ñoom it jort Euh, tax ma sax Seydina Ali ibn Abi ñii ne imaam Shafii la am na bayit yum ci wax di encouragé ak gàddaay ndax loolu jom la day wax ne na nga nangoo génn sab dëkk dem ci réew yi tumuranke ji ngir sàkku ak kawe dal ne te nga tukki nag ndax tukki lu néew new am na juróomi njariñ moom imaam Shafii mooy wax ñu ne ko ban ak ban mu ne day wuññi njàqare maanaam tiitaange ak stress bi nga nekkee woon seen kër ak seen koñ ñu lay léebu ak di la sànni ay baat yu doyadi naan dafa narta tekki ndeyam daal liggéeyut diw sàngam moroomam la te gis nga lim defal ay waajuram gis nga lim defal boppam nga gis say moroom yoo xam ne nii dañoo tukki wala daal yàlla wërsëgal na leen ñu yor seeni situation yu wuuteeg yi nga yor te ngeen juddoondoo màggandoo jàngandoo foowandoo Euh, stress boobu yi ak al imam Shafi yi nee na boo génnee seen kër génne seen dëkk rek loola moom day daal di jeex ndax doo dootoo ko déggatee ñaareelu njariñ li nee na mënees na cee fàggu nag ab dund ku tukki ku ne boo yàqut da nga for dara ñetteel bi nee na tukki def na fa jëlee xam-xam mag ñi sax dañ daan wax ne ku tukki boo fa ameewul xamee ca ba tukki def na fa jëlee ay teggin maanaam ab yar ndax ku yaruwut ci sa dëkk boo demee ci dëkkub jàmbur faaw nga yaru juróomeelu njëriñ bi nee na sa xarit yi nga jàmbat naan bu ma demee fu ma leen di jëleeti nee na demal rek boo demee yàlla dana la wuutalal yeneeni xarit te du tax nga ñàkk sa xarit yi nga bàyyi woon seen koñ ak seen kër loolu mooy taxarrab an il awtaani fi talabil ula wa saafir fa fil asfaari xamsu fawaidi tafarruju hammin waktisaabu maishatin wa ilmun wa aadaabun wa suxbatu majidi nee na boo déggee nag ñuy wax naan yii tukki de moom li ci nekk ci ay jafe-jafe ak i coono ak i tiit ki njàqare ak manding yi ngay dagg ak coono yi ngay tàggoo yi ngay yi ngay ngay toggoo nee na loolu bu mu la découragé ba tey ndax deewu nit kat as mu dee ci àll ba moo gën muy dund ci kër goo xam ne ne dañ koy doyadal ak a saboote ak a suufeel ak a iñaane moo tax mu ne fa in qiila fil asfaari hammun wa kurbatun waqatul fayaafi wartikaabu shadaa'idi fa mawtul fata xayrun lahu min xayaatihi bi daari hawaanin bayna raashin wa xaasidi kon tukki lu fi yàgg la waaye nag ci anam goo xam ne nii nag wax dëgg moo gën a wóor gii ngeen koy defee waaw kon dañ leen koy nangul ndax mënoon ngeen a bokk ci gone yu ñàkk jom yi nga xam ne nii kat ah màgg giñ màgg toll ni seeni waajur te jëriñuñ leen dara defu leen dara ñoom daal bu guddee bu nit ñi tëddee ña ngay taxawal wala ñuy fanaanee ataaya wala ñuy nekk ci naka su dul noonu taxawalu guddi gépp bu fajaree ñu tëdd te duñ julli sax nelaw ba une heure ñu wàcc ñu ñu yeewu di dajalaatu ay digg kaasi kafe ka ak lekk seen cee seen seen ceebu baay te du leen def dara ak nag di triyaaka agressé ka sàcc ak a toxo naan kon nag yéen ñi nga xam yàlla musal na leen ci loolu nit ñu baax ngeen te nit ñu gore ngeen te nit ñu am jom ngeen waaye nag ak lu ngeen am am jom ak lu ngeen bëgg bëgg bëgg tekki rekk waaye bu leen ko jaar ci anam goo xam suñu borom daf koy tere ndax day wax ne wala tulxoo bi ay aydikum ila tahluka bu leen sànni seen bopp ci alkande kon nag bu leen sànni seen bopp ci alkande jaar leen ko ci ci yeneeni yoon ndax suñu borom ay yoonam bari na te foo ko jaar rek dana la gàttandu incha allah